jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jëfal ku ci nekk foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey seetaan wasaare làmb Lutte TV ñu ngi leen di jaajëfal ba tey ñu ànd ak Big Pato mi nga xamante ne vraiment saa su ne rek muy gën a taaral làmb di ñu yóbbu ci ay bërëb di delloo njukkal ñi nga xamante ne bokk nañ ci ñiy jàppale réew mi salle bi nag ñu ñëw mooy salle golf fitness club nga xamante ne vraiment Ah, vraiment ay ndaanaan dañ fi entraîner fekk naa fi ku ne fii fekk naa fi Boy Faye jël naa fi yeneen ndaanaan Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 fils de Balla jël naa ko fii mu ni guy gi euh, mu nekk saal boo xamante ne vraiment mbër yi ci bari bari xam nañ ko tey bu jëlee bis dara jàllee leen ko tuddee leen ko cër la rawatina ci lamb mbëru làmb yi saa ne rek da nga leen di gis ci sal de musculation yi ñuy wane seen bopp xam naa ni na ñaari mbër yi nar nañoo am sens ndax drapeau bi yaakaar naa ni ku ko jël boo xamee abonnement wu un an sax di ko am ci salle de musculation bi te loolu yëpp mën naa nekk ndax buñ nee mbër ne saal kii nag mooy xale boo xamante ni parcelle lay waree bu jugee mbooloo dañ koy topp mu nekk xale boo xamante ne vraiment euh, mu ngi lu ci lam kii équipe les tigres la nekk bu père suñu papa mbay Guèye ñu koy ñaanal yàlla. suuf woyef ci koom mu nekk ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay xale yoo xamante ne làmb ñoo leen boole mais saa su rek Big Pato mu ngi leen di gën a dëkkal seen nopp que ni làmb sport la boo xamante ni benn tàkkusaan la saa su rek da ngeen di ñëw wane ci seen bopp su ko defee ñaari xale yaa ngi nii dañuy jàkkaarloo laale wax loo xamante ni vraiment du génn ci làmb ji damay njëkk a jox Petit loo mu mu mu nuyoo wax adversaire bi wax tey loo gis ci Big Pato tey fii mu la indi blouson bi nga sol maa ngi lay nuyu baax di la ziar. waaw ah, lay fay di la ziar di nuyu ñu teew fii ñëpp rawatina Big Pato nag ndax dafa def lu rëy te dañuy wax ku def lu rëy am lu rëy te incha allah bés bii nii dina loon bés bu réussir day réussir incha allah waaw ndax man moom sama lamb du yomb te sa waay la. xam nga xam naa nii rek. xam naa ko nii rek maa ngi koy doog a gis ñu doo xamante mais loolu daal loolu du cas bëri naa fi ñu bëri xaw ma leen woon. te yàlla may na ma si ndam maa ngi koy sant yàlla ñun dañoo mbapat dañoo ñoo dañoo ba yegg si fu ñu yegg si fii nii tey. tey yàlla dogal bu pato jël ñu dugal si dugal ñu si ay journée kon dañ koy sant. waaw di nuyu nag gars yëpp di nuyu gars yi ma àndal xam ñoom Siri Nooré ni ñoom Franc de ñoom Sow Guèye xam nga gars yi maa leen di daal. di nuyu mais sa daa mel daa am Nduro de. taxawaay beeg bëre beeg yooyu. te nee na xarit xam nga Nduro nga wax. Hmm. neewoo mooy Modou de Nduro nga wax. amuñu tëral xool ko. non kii ma ko xool. lu ma lu xoolee. nga war a kii taxumaa jug. lu tax billaa wala kii taxumaa jug man damaa nekk si yoon. tànk bi amoon. waa yow <laughs> tànk bi blouson yi loolu ay wax la rek affaire bi làmb la buñ duggee si biir géew bi affaire bi foofu la ay tànk yeeg loxo yi loolu yëpp garaawul ñu dañ koy seere natt nga ko. saa ay mbër yii nii du ma leen natt. Hmm. kii nii arbitre bee ko fi bàyyi. moom mi billaay walaay. nee na arbitre bee la fi bàyyi de. arbitre bee ko fi bàyyi. awuzu billaahi mina seytaane ginnaaw sant yàlla julli seen xam nga maa ngi sant sama ñaari waajur di ñaan sama papa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee yàlla na ak sama rakk. Hmm. waa di ma fekk fii ñëpp. parce que lii contentement la sa première lamb xam nga ñu jël la solo la blouson drapeau yàlla jëm kanam duñ seen si bis bi xam nga yàlla nekk yàlla réussir daal waa di wax kontaan ba ñu duggee fii salle bi tamit xam nga suñ xol day sedd parce que sportif moom bu duggee feek fi lii waaw sa xol day sedd quoi di bëggee gars yi ma àndal yëpp di bëggee waa lay tiige bu baax nag waa di bëggee sama adversaire dégg naa lu wax bu baax di ko ne mbër man moom wax ji lu bëri ku daaku bëri a kopp doole yàlla la yàlla may ndax. incha allah xam nga ko. non gis naa ko nii rek. nga kii. gis naa ko nii nga kii. su ma daaxee bëri su ma koy doole. yàlla la yàlla la yàlla may ndax. xamoo ko di wax loolu. non xamuma ko dafa wax lu am solo nee moom daa mbabat. Mhm. nee na daa bëri quoi di daan. Mhm. bu dekkee na dëgg bu ma xoolee. non dina xam ni booy bii nii laal na quoi. waaw di ñaan jàmm rek di ñaan ku daax bëre ko doole. mais nee na nee na nee na moom sa bulu blouson bi xat bi mu xat yooyu yëpp góondiwu ko moom sifflet arbitre la fi bàyyi. non blouson bi sax xam naa li ma teg affaire yooyu noonu quoi. di ji dëgër ko gën. dëgër na. buñ jàppante. Ah. lay comprendre quoi. est-ce que am na ah, liggéey na moom wax dëgg na yàlla liggéey na. Hmm? moom. Ah. ah pour man nag si nu mu ko gisee ni pour man am na doole de. mais mbëri moom des fois dañ ñëw indi biir bu rek yoonu nga jàppante ñoom mooy loolu. bëgg naa daal ñu bëre làmb xale. bañ a néew xam jëmale suba tamit ñu nay xale yu ndaw la dañuy doog a débuté war ñoo taaral kenn dañoo war a ñëw bëre incha allah. faw nga jege si yéen ñaar faw ngeen si ngeen ñëw nii moom moo ko yàggal. Hmm. lamb ji su amee une minute moom moo ko yàggal bu taxawee dëggal boppam ma duma ko daan ko. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama premier sa ñaata combat. bi ma sama premier combat. mais léegi leen daje ci mbapat yi yéen ñaar. que mbapat kii est si àll bi laay mbapatee. te moom fan laay mbapatee. moom ay mbapatu lay mbapat da ngay mu tas. ay mbap man maa fii ba xoolal mbapat amatul. ma dugg si àll bi. eh kon yow champion nga. ci mbapatu koñ yi nga doon doon. ah man de wax dëgg si mbapatu koñ laa na ñu jàppante kuy kuy mbapat si mbapatu koñ daan ko. waaw lenn nag laa bëgg xam nga wax xam nga day ñëw signature bi. Hmm. wax ba nga ne ñii bu ñu jàppante yow dañuy rayante. kii ni muy waxee ñu ñëw yombal waaw waxu mbër la rek. kii ni waxu mbër la. wallaay waxu mbër bi lay feeñ. incha allah ci biir géew bi lay feeñ. comme nee waxu mbër la moom xamuma su ma xamoon du ma jël billaahi. Hmm. kii su ma xamoon du jël. ah parcelle mbooloo da ay ndaanaan. damaa pare soog ñëw. billaahi walaay damaa pare damaa bëri si àll bi ba sonn. Hmm. billaahi walaay. Big Pato. kii daw la ma yaram sax. Hmm. billaahi. leen laay wax ku daax bëre ak ku doole. waaw yàlla ko yàlla may ndam ku daax bëre ma ne ma doole yàlla ko yàlla may ndam. waxul tapet la tapet da koy ootal nag. yéen ñaar ñi di ngeen ootal kii tapet la. da koy ootal mais si géew bi laa koy wan. si géew bi ah. ah géew gi moom lañ koy <laughs> wane li ma ko mënee. ci géew gi waaw. bi foo jëlee ñaari booy. man de. ma daal li may a sax du rek man de combat yi dafa mujj dépassé sax. boo leen jëlee booy yi ñaari moom xam naa ni école de lutte Tigre may. ak aussi la mémoire de notre père qui était décédé Mbaye Gueye moom mi mm. ko sancoon yàlla na ko yàlla yéen taxaar ko àjjana. di nuyuwaale aussi grand Tafa Gueye ñoom Abdou Gueye. Mm-hmm. sama grand yooyu yëpp ak waa Fass Mbao yëpp. Mm-hmm. fa la kii jugee Ibrahima war koo indi ak soose bu Fass moom mu nekk comme ne am na encadrement bu baax. Mm-hmm. Ibuloo aussi parcelle waa ñoom Moussa Diop ñoom ñëpp ñëw fa. ak maam Lees Kotsu ñoom ñëpp vraiment. ay combat yu ndaw amul ah, pour man boo gisee ma am fitu ñëw jël leen investir si ñoom c'est parce que j'ai de l'espoir si xale yi. Mm-hmm. te li ma gën a neex ñoom dañoo responsable. CNG mm-hmm. bu police ñëwul. Euh, euh, centre bu police ñëwul. CNG mm-hmm. ñëwul superviseur ñëwul. yi nuyoon te kafree incident amul. mais lii la làmb soxla lii la sport soxla mooy non violence gëm leen seen bopp yéen mbëri comme nii seede yàlla. xam ne entraînement fulla ak fayda ak jom mooy daan mbër. je pense que mën nañ dugal parrain bi. mu wax ñu salle bi ñu nekk mooy lan. salle bi yow yaa ma ciy njëkk a wax avant parrain bi di ñëw parce que yow mii ñu indi ci salle de musculation bi nga xam ni ku ne dajale fi Balla Gaye war a boo Bombardier sa digganteeg Bombardier ñëpp xam nañu ko tey nan nga doon waajee lool ak nan nga daan def di ñëw ci saal bi. non sax bi ma Balla Gaye waree bëri Bombardier ñii mën nañ ma seede Balla Gaye bu waree Bombardier nekk sama xarit ñu daan ren fii hmm. tey bu waree bëri Bombardier booy bañ fi violence da ngay def yenn effort. Hmm. ma xam ne Bombardier mooy sama te su ma a yàq ñun ñu jël nekk ay responsable loolu mooy wane non violence gi ñu woote fii. Hmm. mu ñu bëgg lu man ma toog sama dem uti feneen

fi nekk yokk maas ak ñoom yokk maas tey soxla wuñ voyager ba parcelle ba fu waay jógee salle bi am na n'importe quelle heure da nga ñëw huit heures ba vingt hmm. hmm. baax. am na ay frigo yi nga hmm. mooy favoriser Sénégal made Sénégal ñun ay sénégalais lañ gis ay sénégalais yu liggéey ñu jàppale sama lamb ji da ngaa gis ma tuddee ci benn politicien. pourtant su ma ko tuddoon Maguette Sène ñu ne ah. wala ay Saliou Samb yooyu yëpp samay xarit hmm. mais a préfère ma encourager les jeunes sénégalais yu ñu investir. Hmm. tey sénégalais moo créé fii Grand ñu koy nuyu au passage bëggul feeñ mm. mais ay Sénégal la fi jël ñu fiy liggéey ay doomu réew ñoo ko moom ay doomu réew mi di fi liggéey tey loolu dañ koy consommer mooy consommer local consommer local mm. kon Pape Diop sama doomu ndey nga dugg si biir Pape maa ngi lay siyaar kaay yegg si nii si ni Pape de boo xoolee xam ne mbëri yóbbu luñ ko dara de <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullah tax auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mm. et puis di ñaan yàlla suñu mi nga xam ne dara teewul bi initiative bi mu jël koy rafetlu rek di ko ci am contentement. Mm. tout d'abord nag balaa ñoo tàmbal dañuy nuyu suñu kilifa suñu mm. patron mën leen bu mi nga xamante ni. Mm. ñun dañuy sant suñu borom baax a baax. ndax tey ji mënoon naa jël xaalisam. dem jéem ko def ko faneen du dëgg. waaye ku créé lu toll nii xam ne ku xool li xam ne macha allah xam ne lii hmm. yéene la liggéeyee. Hmm. du dëgg. Hmm. waaw di nuyu nag ñi nga xam ñoom ñaa bokk ñoom ñaa bokk liggéey bi quoi ñëpp suñu kilifa suñu mag moo xam moo ñu bokk jiite ñëpp. muy grand cheikh comprendre nga man je suis le ma la yàlla def tey ji man maay yor wàllu kii ba yooyu quoi gérant bi yooyu quoi. mais fii moom ñun boo bëggee dëgg-dëgg sax wax dëgg yàlla. affaire ay kilifteef amu fi ndax patron bi jàngaluñ loolu. dafa ñëw yaatal lépp boo xoolee da nga naan sax suñu morom la. ndax ni mu wàccee ta baax. waaw man baaxam vraiment daf maa yéem mënuñu lu rek di ko ñaanal yàlla xéew la yiw yàlla bàyyi ko suñu kanam ba ci euh, ba macha allah mu gën a yaatu daal incha allah. fitness club ñu tuddee leen ñaari combat yi. te ku ne xam na ne xale yi vraiment dañuy bëgg di entraîner rawatina ci salle de musculation yi lan lañ mën a xaar ci ñaari xale yi ku daan. mooy li xam te moom mën naa ko comme comme comme hmm. xam naa su ma tàggoo sama patron du ko bañ. Hmm. mooy ku daan am nga un an gratuit. ah leen loolu. ñu ñëw di entraîner. booy loolu leex na de. loolu naa bëri waaw loolu moom. li may waxaat rek man bi may ñëw damaa dox. <laughs> kon loolu man la gën a jig. Ah. waaw damay ñaan yàlla may man ndam ma ñëw fi préparé waat yàlla mayaat ma combat te xam naa Big Pato lay doonaat ndax deuxième journée baa ngi ñëw incha allah. <laughs> kii ba kii fu mu jógee dafa sori dama damaa dox ñëw. Hmm. waaw loolu. fii man la gën a jege. lu yom baax ba mu ñëw laa dox ma na paas fu sori laa jógee ñëw fii. te yow bu ñu ko joxee di nga ba ma duggee fii damaa kontaan xam ne bis dina jot ma entraîné fii. Ah, te un lañ ma wax nag. ah. fekk naa la de. kaañ bu baax. waaw kon suñ benn grâce. jiwoo jiwoo grâce. waaw mi ngi noonu quoi. léegi ma tamit lancer message sportif ñu defar seen yaram. Hmm. xam ne ñu entraîné. xam respecté con ñu entraîneur. sportif da ngay gérer. man fii ñu naan maa leen mag mais su ma simee ko ñu ñoom su ma dañuy rus. sportif da ngay gérer sa bopp. grand Cheikh kaay joxe sportif conseil. waaw li nga xam moom laa bëggoon euh, xëy na mën naa ne tëjee wala dara rek. Hmm. mooy non violence bi nga xam te moom la Pato woote. Hmm. loolu franchement parle boo xoolee loolu loolu. ndax mbëri léegi war nañ xam ñoom ay nobbu lan. Hmm. ay kilifa lan. ay góor lan bu dee kenn woo ay xuloo xeex xëccoo yooyu loolu du yëfi nit. bu dee biir koom bi reyante leen. mais xool tëjee par exemple exemple boobu Balla Gaye ak mu mujjee. fu lamb ji tolloon. bu paree nu mu mujjee ka fooree. kon la mën a yee. du ngeen ay ay seen liggéey ngeen nekk liggéey nag waa liggéey nag liggéey bi nag xoolal day metti mm. liggéey moom mu ta yomb mais bu paree bu jeexee mm. jeex na quoi waaw kon nag franchement bu jeexee jeex na waaw kon xéwal bi saa jaay xéwal jaay grand lay siyaar maa ngi lay delloo siyaar grand est ah, laaj la loolu nga dóor ba ko ah. dóor mooy li mucc ci doom aadama war a def mm-hmm. ok man loolu lañ ma enseigné. mais ñii dañ leen fay ñuy dóorante. seen métier la. seen métier la foog ñu dóorante pour kenn ku bëgg am ndam am la. bu hmm. ñu leen fay ñu taxaw di xoolante. Hmm. spectateur yi duñu ñu kontaan. Hmm. promoteur bi du kontaan. donc ñoom la mais man du ma dóore man damay enseigner. mais grand boo gisee xale yi. Cheikh. grand Cheikh. boo gisee Cheikh oh. ah, waaw maa ngi wax grand ah, Cheikh boo gisee xale yi. état de forme yi ñu yor. Mm. fois bu ñu ñëwee ci ay athlètes. Mm. da ngay gis forme yu débordé yoo xam bu ñu simee sax da nga naan kii est-ce que coach bi ko yor. Mm. professionnel la xale bu bëgg am doole. bu simee ñëpp naw ko ci forme bi ci lan lay commencer. en fait en matière de d'entraînement. c'est-à-dire dafa mel ni ngay jëmbat sa garab. xam nga garab boo koy door a jëmbat. bu fekkee ne nii nga bëgg mu def. nga jëmbatee ko ni nii lay def. Mm-hmm. boo ko jëmbatee nii bu màggee nii lay demee. Mm-hmm. donc muscle dañ koy tàggat comme ni ñuy suuxatee racine ci biir suuf. Mm-hmm. ok donc petit à petit ngay muscle c'est comme dafa am mémoire. da koy teg xam ne lii nga ko war teg bu jeexee nga teg ko leen ainsi de suite ainsi de suite. mais man ñoom li ñuy def bay new yi di kii man xaw ma ko. man loolu ma jaaxal. waaw man ma aussi jaaxal non xaw ma ko. mais bu fekkee ne protéine la protéine du def noonu. Mm-hmm. ok parce que protéine bu fekkoon ne benn affaire la bu ñuy teree pharmacie du ko jaay. Mm-hmm. boo bëggee protéine da ngay dem pharmacie. Mm-hmm. ak créatine toutes sortes de vitamines boo xam ne. c' est conseil boo demee pharmacie da mais nga jël loo xam ne day enflé nii man xawma ma la <laughs> te baaxul. xaw ma lan la mais baaxul. comme ni mu ko waxee tantôt muscle da koy tàggat ndànk muy dem toujours noonu nga ko tàggatee noonu même boo amee cent kilos wala cent cinquante kilos dañuy gis toujours les muscles dañu gis man gis nga mu gis nga biir ak taat ak ay leex. muscle te ñii maa leen mag fuuf. mais Cheikh li ma jaaxal mooy des fois nga gis ci athlète boo xamante ni vraiment boo ko gisee. dayoom ni muy toll bu simmee ko ci làmb wala yooyu muy jël lan yan jafe-jafe la ko mën a jural ci carrière làmb parce que da ngay gis dix jours sax wala quinze jours mbër yokk ci vingt kilos. waaw c'est-à-dire aux États-Unis boo fa demee. Hmm. boo ñëwee yow yaa choisir li nga ni nga bëgg. parce que lañ la wax before after maanaam avant après. Hmm. exemple ma jox ko kii mën na toll nii. waaye hmm. ci ci ci quarante cinq jours. mu toll nii. xam nga loolu c'est pas naturel. xam nga xam nga li nga xam ne moo tax nit di développer c'est le sang. Mm-hmm. deret la ak ndox moo tax nit di développer. Mm-hmm. sa cœur dafa am nu muy fonctionner pour booy entraîner muy am développement ndànk-ndànk mais fekkee da nga jël loo xam ne da koy booster accélérer ko. c'est-à-dire sang bi bu fekkoon ne dafa war a daw dix muy daw quarante cinq. mais loolu mooy indi lool loolu nag à la longue cœur bi du ko mën soutenir du ko mën a soutenir da ngay jékki-jékki ñu ne am na arrêt voilà. am na solo ma koy jaajëfal bu baax Cheikh euh, ñaari at la di xam naa boo leen xoolee rek natt ci bët di nga xam. kan boo ci en fait en fait euh, ci xool nii kenn du xam ko ëpp doole. Hmm. déedéet. loolu xam nga man ki nga xam ne seq na moom dara ñu yàgg entraîné dinaa mën wax dara ci moom hmm. mais kii ak kii neexoon nañu. Hmm. neexoon nañu bien sûr. affaire u xale la bu leen fa ñëw di taxaw fee di def ay nii prip. jeex na yow maa ngi lay dégg sànq ba léegi yaa ngi wax rek. man je préfère que ci arène bi nga def li nga wax. Hmm. moytul ma koo xam ne dafa ñëw ne tek kii li ma koy wax moo bëriwul. waaw non man non c'est-à-dire waxuma moom man yow laay waxal. li wax moo non xoolal kii drapeau GFC la. Hmm. Eh? GFC la. Ah, ok man dama juum sax balaa ma doon wax dara dama waroon présenter salle bi ba pare. ok maanaam salle bi ki ki tax tey lii am c'est un sportif de haut niveau. quand je parle de haut niveau gars yi bu ñu defee haut niveau rek dañuy foog ne way football na fële def na lee def na non non c'est là. waaw. Mm-hmm. bëgg depuis quinze ans mi ngi entraîné sans arrêt. loolu je peux dire que mën naa ne sport yu niveau la xam nga ku jël lii bu doon yeneen gars yi dañ koy def immobilier oui mais daf lay woon ne moom sportif la xam nga ku jël lu mel nii def ko investir nii xam nga vraiment dañ koy ñaanal yàlla ah sunu borom bi euh, kattanal ko di ko gën a kattanal et puis mu nekk sportif bu compréhensif. compre amul amul problème xam nga. ñu mel nii dafa dañu baax ci société bi dañ leen di war a ñaanal yàlla li leen dimbali donc man dum ko woy turam jëwriñ laa koy wooy parce que ci dëggu du mu man man du ma jay doomu aadama mais bu ma gisee nit koo xam ne dafa dëggu mel nii dama koy wax yàlla na ko yàlla jàppale xam nga defal ko lu kawe njortam ci lii mu ubbi ok donc Pit Pato yow aussi man euh, damay ñëw ci yow tuuti man ci yow la fii laa xamanteeg yow ci salle bi mhm. dëgg-dëgg mais bu fekkee ne waxte yàlla tax ku baax la am compréhension waaw mhm. xam nga mhm. comme wax na ko ci njëlbeen bi ne combat bi muy préparé Balla Gaye xam nga loolu ku bëgg ku ku ku ku ku mur mooy mooy def loolu bu ko neexoon ne fii day entraîner fii par la force te kenn du ci man dara mais compréhension moo tax mu dem ne comme que xàmmee nañ ko ak euh, bombardier na dem te ju genre boobu du genre boobu mu loolu nekk ak bombardier naata bu ñëwee du fekk dara du genre boobu. am na donc lii mu lii mu lii mu créé nii c'est pour prouver li ma doon bëgg a wax. que moom non violence lay dox si non violence dox donc sama gars yi kii c'est un nouveau promoteur xam nga Sénégal xam nga lan la ñuy bañ kuy dem hmm? mais yéen a koy jàppale rek mu dem ngeen ñëw def combat yu neex drapeau GFC que le meilleur non violence. am na solo. big ah dégg nañ ni dégg nañ ni eh, kee di jógee bitim réew mu ngi ci yoon bi de. waaw eh man de jot naa benn message gars yi. aéroport de xam naa ne teeru ba xaw ma ne tubaab ndax day indi ci mukaay boppam xaw ma ñi ñi koy xaar fi ñoo ko jox ci mais ku bëgg xam ne tubaab indi da ngay xooli wasaare wala Lutte TV wala 4appuis wala Big Pato TV ak Lutte TV ak bi daal xaw ma ndax ay ci mukaay da koy indi jëlee Europe ñëw xam nga da koy fekk mais daal lu mu indi ñun dañ nañ ko ba ñu bëgg nañu gaaw xam lu xew lu ci am nag ñi ngi xaar incha allah bi yàlla indi ko si jàmm ñu jëlee ko aéroport wax gars yi lu tubaab war def di remercier waa encore fi ma nekk di parrain bi comme ni ma ko waxee rek ñun ay sportif lañ di au niveau mm-hmm. Mm-hmm. kii tey boo xoolee à son âge sportif yu bëri tey ba simee ko kii simee ko da ngay rus sax da nga naan kii moo la gën di doxale mm-hmm. mooy que sportif da ngay am hygiène xam ni ngay préparé aussi phase bu ne xam ni nga koy liggéeyee muscle dafa am temps de travail ak temps de récupération te muscle aussi dañoo alternative daa xam muscle yow bu ñu yi dañuy euh, contracté wu bu loolu aussi boo ko xamul bëgg a def sport da ngay sonn <laughs> non ci sport bu la ñuy def ci yëngatu tey ba yàlla dimbali ñu dem ba liggéey ak waa FIFA ba may diplôme tey ci sport tamit di ñëw di def promouvoir suñuy jeunes ñii man jàppale ma leen ay mbër yu ndaw ah. man dama di que petit champion yaa ko des grands champions aussi hmm. c'est dans la tête dans l'esprit comme ni seeni magi bopp lañ làmb ja xamuñ kuy daan kuy ñëw sa entraînement nga xam bu ngeen simee ko ba daw nag ba daw dawaat ñun boobaa mën nañu commencé juger mais pour l'instant nag duñ jéem a wax suñu rak ngeen seen xar seen entraînement te xam ne li ci combat bi bu leen forcer action conseil bi ma leen di jox nag sportif yu bëri dañuy dem am combat une semaine ñu gaañu loolu erreur la. une semaine ci combat bul def dara musculation tegal fële contact ak daw kese jeex na footing récupérer tëdd def say sangu comme kenn mu leen tee sangu. di xam ni nag ak gan nañ am ko war a jóge bitim réew tubaab dun kan bi plateau 2 bu ñëwee da ngeen ko war a yar ak teggin ak ambiance te xam ne combat bi ay autorité de police ñoo war ñoo seetaan mm-hmm. parce que man suba ba léegi maa ak police euh, kilifa police yëpp ñëpp jox nañ ma seen aval mm-hmm. la fa nar nekk ci takk der xam naa nar ñu xam ni grand Malay Mboup ñu koy sant di ko ci lim def ci investissement en tant que jeune sénégalais bu ko neexoon mu jël xaasam def di baat doo ko gis ci lu ñàkk ful hmm. def fi sax bëggul xam ko blouson yi moo ko jënd ak drapeau moo ko kereel boppam def ci xaalisam hmm. mënoon na ma booy sama yoon yooyu hmm. mais bëgg sport gëm réew moo tax muy def lii di wax ni gars yi nañ ñu di fi entraîner parce que coach yaa fi matériel yaa fi oh. vitamine yi ngeen soxla yëpp am na fi fii lépp am na fi. am na solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax xanaa dañuy bàyyi mbëri joxante loxo rek su ko defee ñu joxe dig daje. ay mbëri dem leen ayca leen loxo joxante leen loxo. wan wan leen bu ngeen joxe loxo daanu. mais lii mooy àdduna lii mooy sport fair play ana Égypte ak Cameroun dañu doon fa ba léegi Cameroun moo organisé équipe équipe dóor na ko pourtant dañuy toog ñibbi sportivement duñ toog duñ dara ñaan yàlla nag gaynde yi gagné coupe bi bu gaynde yi gagné dimanche ma ci samedi ba ma invité ñëpp ñu sargal lion yi le 12 février ñu def ko sargal lion yi nag yàlla nañu yàlla musal ci cat dafa ñu jàmba suñu joueur bi kenn bañ ci Covid parce que loolu ndamul Sénégal mooy suñu ndam ñun ñëpp a ko bokk. kon gars yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu si la douze jàmm kon papi kontaan naa ci li ngeen def jaajëf